ومرسل الشفاء والدواء حمدا لمرسل الدنا والداء ومرسل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من ثم استثمرت يبرأ بلا بد وفاز بالخرج محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم ولا لوسف سوي العلاي ما تاج سوء أزكى من الصفاء هذا وإن اليوم سوء أوجاعي مبتقيا عون المجيب داعي واسكي إليهما من الدرر هل مسني عتى أراني مهتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا yaa rabbana yaa rabbana fahdur lana bi jaayi xayri aalamiin al akramin summa bi yumni ramadan al asamin yaa laahu yaa rahmaan yaa rahiim yaa barru yaa kariim yaa wasiim اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم إيمانا وتجاوز عنا وأنزلنا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر محن وهب لنا الآداب والمسايا وكفنا الآفات والرسايا وهب لنا الحرص على التواتي وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر ولا يا سافي أنزل صفات مكانك العفو مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والتبهم ولا تواقسهم بكسر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لجوف يسهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلسس الجوارح أبداهم لأفضل الخبائث فلا تواخس بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعهم يا الله يا مقلب القلوب خلب قلوبنا عن الهيوب واغنى بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين واجعل جميع المسلمين ترا لنا أخلا فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات سمها فيهم قدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين ساهدين واجعل جميع الساهدين ناصحين واجعل جميع الناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وآخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وديرا وأغننا بحبهم لوجهك وأغنهم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم ازداد النسب واجعل لنا هنا وحنا مسا ذا حدة تفضلا فنخزى وهب لنا مكارم الأخلاق مع تعبد بلا سقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يهين للصغير واجعل قلوبنا على التوابد بلا تناسل ولا تحاسد ولا تغاسل ولا تدابر ولا تباخد ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاسرين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واحمي وهم وكفنا عن مسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأفراد محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe ku si nekk ñoo ngi lay nuyu si sa tur ak sa sant di ñaanal xalifa bi seex Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Serigne Basiiru ibnu Serigne tuuba mu yàgg fi lool te ànd ak wér balim naa liggéeyal ko Seexuna Ahmadou Bamba maamam mu def ko ni mu ko bëggee noonu la ñuy ñaanalee njabootu ko Serigne Touba gi yëpp. di ñaanal eh, njabootu këru diine yi nekk si Sénégal ak fu nu mënti nekk eh, ñu ngi ñaanal particulièrement eh, Serigne Cheikh Khalifa Darou Salaam di ko ñaanal bu baax a baax lim yéene liggéeyal maamam ja maam Anta boroom gaawaan mu def ko ni mu ko bëggee di ñaanal borom dëkk bi Baye Cheikh Mbaye ku ne xam na ni gàmm longoor moom Baye Cheikh Mbaye fa mu ko yóbbu kawe na te li mu suy def macha allah adduna bi yëpp xam nañ ko. ga Longhor nekk dëkk boo xamante ni nag dëkku dëkku historique la euh, dëkk la boo nga xamante ni euh, fu si nekk nit ñaa ngi jóge fu si nekk si àdduna nekk ay guide touristique di ànd ak ay guide touristique ñu leen indi fii si Longhor pour ñu visiter xool ba xam euh, xool li nekk si Longhor lu baax magu diine yi nekk fii magu lislaam yi nekk fii mu nekk lu ñuy rafetlu Euh, tey nag ñëw nañ si gàmmo gi ànd ak site internet euh, Salam TV euh, mu nekk site bu am solo boo xam ne si mbiru diine yi da si taxawaay da si taxaw bu baax a baax a baax ànd seeg Serigne Galas ñu ngi si waañ bi nag daal di taxaw ak jëwriñ ji nga xamee ni si moo yore liggéeyu waañ wi bëgg waxtaan ak moom si yoreenu waañ bi ak nan la ñuy toppatoo gan ñi sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la laaj tur bi ak sant bi. man maa ngi leen nuyu baax di leen siyaare. Mm-hmm. maa ngi tudd Cheikh Thiam euh, bokk ci ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu waañ wi euh, di nuyu waa Assalaamy TV bu baax a baax di jël nuyu bi ak siyaar bi ak Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaan yàgg ak yeggale di siyaare sëriñ Modou së euh, sëriñ euh, euh, Cheikh Mbacke am sëriñ Modou Rokhaya mhm. di siyaare Baye Cheikh mi nga xam ne mooy borom dëkk bi mhm. ak mboolem kilifa yi nga xamante ne bii ñoo ne ci biir dëkk bi mhm. jërë ne xam na ni gàmmu Longoor moom nit ñi fu ne leen jógee si àdduna foo foo sànni vague vague mu tag ndax nit ñi ni ñu fii bëree yow nag ñu jël daal lay teg si fu am solo mooy wàllum waañ bi def la président bi ma la doon laaj ba xam nan ngay doxalee pour waañ bi gën a jag gan gu ñëw boo ñu gi mën a gis sa bopp. <laughs> jërë ngeen jëf waa Assalaamy TV ñu ngi leen nuyuwaat baax baax di leen siyaare. Mm. Euh, waañ wi euh, metti na méttiwut mm. ndax kenn ku ne xam na ne mm. waañ euh, jom ju mat sëkk. ak fulla ju mat sëkk ak fari ju mat sëkk. la ko di yore su fekkente ne bëgg nga liggéey bi jag. ndax faaw su ne bëgg nga waañ wi jag rek doo si bëgg ko tagg. doo si bañ ko ndax kenn ku ne xam na ne waañ moom ku fa nekk nekk ci liggéey ba su fekkee aw aw tagg nga bëgg waañ waru jag. su fekkente ne aw aw xas ngay bañ waañooru jag kon lépp loo xamante ne bi tamit euh, mën nañ ko def pour waañ yi nga xamante ne bi lépp luy joxal liggéey bi jag togg yi baax ñu mu mel na mu war a mel ñu séddale ko nañ ko war a séddalee euh, loola ci la taxaw temm suñ kemtalaay kattan ñu bokk nag ñi nga xamante ni ñun ñoo ko jiite euh, diit góor lu baax ci suñ kem kattan ndax kenn ku ne xam na ne waañ bari na ay surux surux tàng na bari na ay daal yëpp daal mën na si koo wax waaye daal ñun ñoo ngi kem kattan lépp luñ mën ak luñ mënut ba xamante ne liggéey bi ñu ci denk danañ fexe ba mënal ko dinañ fexe ba matal ko suñu kem kattan sëriñ Seex Baay Seex mooy suñu lépp suñu waajur la suñu lépp la ndax euh, wolof day wax ne peccum liir bu neexee yaay ja moo jàpp ca wagg ya te kenn ku ne xam na ne ñun ay xale yu ndaw lañ depuis bañ doon ay tut tànk ba tey lépp moo ñu ko mënal taxaw nag jàppale ñu sitaanuñu benn yoon guddi bëccëg suba ak ngoon lum man ak lu mënut ci daayira bi mu ngi ko ci def ngir sunu sag kenn ku ne xam na ne day lii ñun ñu def ñun waa dëkk bi buñ ko def toon tamit nit dina jóg ci àll ba def ko waaye yàlla dogal na euh, ñun waa dëkk bi lépp ma jóg teg seen loxo ne ñu nag ànd leen ci ak ñëpp bu leen xaaji kenn bu leen boddi kenn moo tax fépp fu ñu jógee ñëw ci bés bi ngir jëmmi Baye Cheikh ngir jëmmi Longhor dina la teeru tatagal la ànd ak yow ci liggéey bi dalal la ci kër yi jox la nga lekk jox la nga naan ba lépp loo xamante ne bii ne yaakaar nga ko noonu ci Longhor rek saa soo ñibbee di am la kawe njort loolu te loolu mooy yéene Baye Cheikh mi nga xamante ne bii mooy kilifa gi ak ñi nga xam ñoo topp ci ginnaawam di ay xale loolu suñ ñun mooy loolu mooy suñu yéene eh, kenn ku ne bu dikkee comportement ba nga indi ñun ñu ubbi suñu xol ubbi suñu kanam yaatal la di wax ak yow di jëfe yow ndànk ndax ala kulli haal saa soo gisee mbooloo faaw ñoo am ñoo xamante ne bii ne dañuy naqari deret am ñoo xam ne dañuy tëxat am na ñoo xamante ne bii daal euh, faaw ñu daal jikko joo xamante ne bii euh, kiiwul waaye nag yow mi nga xam yow lañ fekk si yow yaay jéem a muñ tey tolore ba nga xamante ne bii ne kat euh, ñi nga xam si ñoo la fekk si saa su yàlla dogalee ñu ñibbiwaat duñ ne ah man de waa daayira bi dañoo naqari deret waa daayira dañoo mel ni dañoo mel naa faw ñun ñooy muñ nit ki mënut ta woo nit ay nit ñëw fekk si ko nga gën leen naqari deret déedéet ak jikko joo mën a faw nga wàcce ko ànd ak ñoom ci ak dal ndax képp ko woote kat ku la fekk si nga bëgg te nit ki tamit war a jóg fa mu nekk fekk si la ñëw nga bëgg a nekk moom nu la neexee déedéet ni ko neexee ngay nekk moom ndax euh, bis bi yàggul luñ la fi gan wan a def ak tontu mu la mën a tontu war nga gaaw mën a muñ jëlale reetaan ba mu dem ci jàmm di sant waa ala di sant waa Assalaamy TV bu baax a baax a baax a baax ci taxawaay bi rafet bi nga xam ne def ngeen ko fii ci Longhor jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ bi am nañu mbégte bu baax a baax a baax kon internet yu Assalaamy TV euh, ama amati ngeen mbégte bu baax a baax si découvrir Longhor ak daara ji ak waañu ni muy doxee. Soxna Joor Njaay laa tudd maa ngi leen di nuyu yéen leen sant waaw. Oh, màggalu Longhor moom di jiital sax nag ca ji di nuyu Baye seex mbay mu yàgg fi lool nag ca ànd ak wér waaw màggalu Longhor moom ku fi taxaw xam nga ni màggalu Longhor mer jigéen ñi moom jàmbaar lañu takku nañu ne ci waañ wi ndax waañ wi ku ci taxaw xam nga ni jàmbaar rek moo fiy taxaw di toppatoo ni ñi nekk ci eh, eh, gan ñi bëgguñu gan ñi xiif bëgguñu ñu mar. bëgg ñu ñu ñibbi di yóbbu sunu bañ leen a faale lu nu man daal noo koy def ngir bés bi waaw. bànneex bànneexu gan yi rek la ñuy waaw waaw noo ngi fi ba altane ba gan ñiy xëy noo ngi ci rek takku nag laxasaay rek ànd ak nag góor ñii mm-hmm. ñoom it ñoo jàmbaare nag mm-hmm. jiite nu nag mm-hmm. ca bañu nu dara fa këstaluñ ñu wax dëgg yàlla ñoom it leen di ñaanal yàlla may leen wér. ak gudd fan ba fi ñu bëgg a eggalee daayira bi ñu eggale ko fi wasalaam.